lu tax nga nekk ba léegi lu tax ngay xaar gis nga nit bu defee dara ci temps bi mu ko defee nañu fàtte li nga xamante moo doon ci gan def ko woon parce que initiative heure boo xamante ne neex na député bi mu gis ne lii war na koo def ok da koy def ndax bi nga xamante ni tey coow la jàpp na gis nga tey ñu bari ñu suñu doon wax nee naa la la Mamadou Lamine Diallo yaakaar naa moo ko njëkk waaw waaw feeñal parce que ñun bàyyiwuñ si woon xel li tax bàyyiwuñ si woon xel mooy man dama woote loi pour que ñu dindi post premier ministre. ok bi loi bi dikkaat bi ma jëlaatee kàddu ki nga xamante ni maanaam moom moo doon ñëw toowal gouvernement dama ne ko ndax li nga xamante ni post premier bi ñu koy dindi ci assemblée yóbbaale woon na lépp est-ce que indiwaat na ko mu ne ma waaw hmm. ma gëm ay waxam. bi ma gisee ni am na ay nit yoo xam ne bind nañu président assemblée nationale lettre te ñoom ñu jàpp ni ñoom bu dee xam-xamu nasraan ñoo ma ko ëppale. Hmm. lan moo tax defuñu woon comme ni ma def tey. depuis booba léegi non lettre lañ bindoon quoi defuñu mais lettre amul njariñ. Hmm. da nga def proposition de loi gis nga ko yow. Hmm. defal proposition de loi ñaari at yi defoon nañ ko ba léegi ne rek lan problème boobu noonu. kon bu fekkente ne man ñu ngi naa ñëw ba tey ba def ko li tax ma def ko mooy dama xam ne assemblée nationale. comme am na coow lu fa am ci diggante exécutif ak législatif te mu nekk nit koo xam da nga war jël ay initiative parlementaire war naa sukkandiku ci règlement intérieur article 60 pour jël ko ba ma ko war a jël jëluma ko woon loolu amul solo lu tax ma jël ko rek moo am solo mooy pour askan wi nekk si jàmm ñu respecter suñu constitution règlement intérieur assemblée nationale parce que bul fàttali euh, Ousmane Sonko amul nag ay benn Euh, obligation pour mu ñëw assemblée mhm. amul parce que consomme jox ko délai assemblée nationale amul règlement intérieur assemblée bu koy jox délai mhm. même bu ko joxoon délai Macky Sall mi jiite woon réew mi bi ko Abdoulaye Wade falee mhm. toog na juróom benn weer doo ko ñëw te boobu kon règlement mi ngi doon dox Abdoul Mbaye Macky Sall na ko premier mu toog ñeenti weer doo ko def déclaration pour Sénégal te booba règlement intérieur assemblée article Euh, article 97 mi ngi dox mais déggula benn politicien wala benn presse bu wax makki sàll ni ko yow kii sa premier ministre bi li mu def du yoon parce que ñoo nekkoon ci nguur gi mhm. waaw wala déet bun Ablaye Dione yàlla ko yàlla yërëm Macky Sall moo ko faloon toog na ñeenti weer doo ko ñëw di Dakar pour général kon maanaam jamonoy Macky sàll ba fi may wax a yow amul si kenn ku ko respecté woon Amadou Ba sax tane na parce que appal na tuuti ay fan mais njëf def na ko parce que Amadou bi muy ñëw dafa sukkandiku ci li nga xam mooy constitution pour ñu def ko loolu mooy acte républicain kon mënu ma nangu tey nga nanguloon Macky Sall lee mu def ba pare nga bëgg koo bañal Ousmane Sonko ak lan moo fa indi débat Ousmane Sonko dafa war a ñëw def déclaration obligation loolu mooy problème bi bu fekkente ni tey yoon tënk na ko tey ba dugalaa son règlement intérieur Assemblée mm-hmm. nationale mais su boobaa bu fekkente ni dem na nag ban wate ko ba mu jàll respecté wu ko subaa ñun député ñu ne ah yow ko da war respecté règlement intérieur Assemblée nationale mais comme nekkul si règlement bi kenn ñu ko obligé. def naa ko maa ngi xaar li nga xamante ni mooy assemblée ubbi ñu mën koo càmbar pour instaurer waat li nga xam ne mooy euh, article yi nga xamante ni dinañ ko ci règlement international gis nga bu député yëpp doon def comme man. Hmm. loi yi dana jaar yoon Sénégal dana am jàmm. mais bu fekkente ni xëy na pour nga bëgg bës da ngay dem wax mais doo def att doo déposé proposition de loi ku dul yaakaar naa man a Guy Marius Sagna ci Assemblée nationale est-ce que déposé ay proposition loi man maa ngi sama 45 proposition de loi yoo xam ah moo feeñ rek 98 questions écrites actualité hmm. Hmm. xam nga li ma def seen assemblée eh, yàlla seet na ni dama bëgg moo tax fi mu toll bu ma paree assemblée damay def li nga xamante ne mooy livre. ok extra parlementaire dinaa ko bind. il faut ma def ko en tant que doomu daar naa bind naa bind téere jëmee ko ci ñi nga xamante mooy secrétaire parlementaire doomu daar assemblée nationale